bisimilah salaamaaleykum rahmatullah ñu ngi leen di ziar euh, xam naa ñu dem rek dans le vif du sujet euh, yaakaar naa euh, mën nañu présenter suñu bopp rek bu gaaw man maa ngi tudd Cheikh Tidiane Mbaye nekk docteur en sociologie des religions comme ni ko Hadj Malick waxee donc sociologie moom mooy science bi nga xam ni mooy étudier société. Euh, donc société mooy ñun fi nga xam ne ci lañuy dund donc comportement nit yi ak euh, problème yi nga xam ni moom mooy am ci biir ci biir communauté bi donc loolu mooy sociologie donc jafe-jafe yi nga xam ne moom moo ci am ñi étudier ko xool lan moo ko indi euh, parce que dafa am sax ay borom xam-xam yu wax naan sociologie mooy seetu société mooy su société donc sociologie sociologie mën na dimbali société mu xam euh, ni nga xam ne moom la mel xam ay jafe parce que jafe moom boo ko xamul rek boo ko boo ko xamul doo ko mën a saafara mu ngi mel ni euh, ak am na beneen exemple bi ñu joxe ñun sociologie moom mooy médecin société donc bu ko defee bu jafe amee ci société bi moom mooy dafay jàngat pour mën a xam donc euh, yan jafe-jafe la bu ko defee ñu mën ci génn saafara motax euh, sujet bi sujet bu am solo la donc sociologie des religions religion xam nga mënul ñak ci société donc bo xolé danaka euh, société yëpp am nañu religion parce que diine dafa am solo ci dundu nit té dafa bok ci li euh, orienté comportement yi nga xamné ñu ngi ci société na ñun ci société bi nga xamné mom lay dund Sénégal nga xamné ne dafa am fi am solo suñu thèse ñu defon ko ci tarikh yi doon jangal seen ëllëg donc euh, ban ëllëg lañu am ci ci Sénégal maanaam ci nit ñi ni ñu nekkee ci biir tarixa yi daal ak gëm bi nga xam ne gëm nañ ko euh, këru diine yi ci loolu lañ ko defoon euh, li nga xam ni moom la wane recherche boobu li mu wane mooy Euh, boo xoolee euh, Sénégal lu ñuy gën a avancé rek nga gis euh, kilifa diine yi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo soqeekoo ci famille religieuse yi lu ñuy gën di avancé ñu gën di ñàkk seen prestige maanaam teef bi nga xam ne moom la ñu am ci penc mi te loolu daanaka amul tànk ginnaaw mais tànk kanam la am donc gis gës gëstu yooyu lañu lañ la ñu ci def ñu jàpp ni loolu bu dakkul mën nañ dem ba daanaka li ci desandi daal ci kilifa kilifteef googu daanaka dootul bëri Nous avons dinañuy ñëw sax ci naan lañ koy ak euh, situation politique au Sénégal donc euh, kat lañu aussi ci université virtuelle du Sénégal actuellement ñu koy wax université numérique Cheikh Amadou Nous fofu ñu ngi fay jàngalee ay matières yu bari méthodologie sociologie euh, des religions religion et modernité Euh, méthode euh, donc am na am na module yu bëri lu ñu fay jàngale ñu ngi jàngale aussi ci benn université anthropologie sociale culture africaine euh, université Cheikh Ahmadou Bamba aussi ñu ngi fay jàngale anthropologie ñu ngi fay jàngale ñetti module éthique et humanité donc place su éthique maanaam jikko ju rafet mbaax ban place la am ci dundu nit ba ban place la am ci dundu société ci fonctionnement la société ñu faisons fay aussi benen module bu sociologie de l'entreprise et euh, ak benen module bu euh, monde des affaires Nous euh, nañ aussi lu ñuy intervenir ci espace public bi mo xam wax la wala ay émissions def wala bind xam te dañ koy publier ci Facebook ci réseaux sociaux yi wala ñu publier ko ci journaux yi xam sur le plan international wala sur le sur le plan national. Euh, donc euh, mus nañu jaar aussi ci benn centre d'incubation de projet donc centre boo xamante ni dañ fay tàggat ndaw yi euh, donc ci ñu am ay capacité surtout sur les soft skills donc développement personne leadership entrepreneuriat jaar nañ foofu benn centre bu nekk Sénégal c'est fii Thiès donc ñu koy tuddee CERIP Sénégal ñu nekkoon fa directeur général bëri na nag lu ñuy yëngu ci recherche. Euh, surtout avec les étudiants di def ay voyage d'études un peu partout au Sénégal dans les îles du Saloum ak zone yi nga xam ne dañ fay exploiter mine donc dem def ay gëstu xool euh, ressources yooyu ñuy exploiter foofu par exemple zone dem nañ fi Kayar dem nañu Ngoundiane dem nañ fi Lam-Lam donc daanaka euh, zone yu bëri ñu exploiter ressource naturelles Sénégal dem naa fa ànd ak étudiants yi def voyage d'études te ñu am nañu seetlu aussi ñu ci def que ni Sénégal bëri na ay ressources mais boo xoolee euh, population yi nga xam ni ñoom ñooy dend ak ressources yi jafe-jafe yi ñu ciy jëlee euh, ci ressource yooyu moom moo ëpp njëriñ yi jafe-jafe yi ci wàllu euh, pollution jafe-jafe yi ci seen wàllu économie ci seen wàllu koom-koom waaye da ngay da ngay da ngay dem sax ba gis ni ressources yi day dem ba sax day créer clivage day créer fracture ci ci société yooyu ci communauté yooyu nga xam ni ñoom ñooy abrité industrie yenn industrie extractive yi xam naa dinañ ci dinañ ci ñëw ci kanam donc am na ñaari structure de recherche yoo xamante ni ñu ngi ko diriger euh, benn bi mu ngi tudd think tank garab donc moom gëstu yu bëri yu muy def mu ngi koy def ci gestion des ressources naturelles au Sénégal am naa dinañ si ñëw ci kanam beneen structure de recherche bu ñu diriger bu tudd euh, club RMS club mu ngi tudd club des de la méthode sociologique donc boobu ñu ngi ko sos ak étudiants yi euh, juste encadre leen quoi gën leen nàmpatal ci bëgg lecture parce que sociologie moom boo dul lire moom da ngay am jafe lire, lire mom da ngay da ngay am euh, lecture yombul donc lecture yombul dafa volonté dafa euh, euh, persévérance donc dafa dafa dafa laaj lire, waaw ñu créé structure bobu tuddé ko club RMS club les règles de la méthode sociologique nga xamni mom livre bi nga xamni kuko bind fondé sociologie ñu koy Euh, ñu koy tuddee Émile Durkheim donc mu nekk livre boo xamante ne dañuy naan mën nañ ko tuddee sax le bréviaire de la sociologie donc mën na nekk bréviaire sociologie parce que boo ko xamul boo ko maîtriser wul pour nga nekk sociologue dafay jafe. Euh, nekk sociologue dafay jafe donc grosso modo daal loolu moom mooy suñu suñu parcours euh, pour ñu ñu ñi nga xam ne xamuñu ñu maintenant sujet bi <laughs> sujet bi am solo la donc. Euh, boo xoolee sax am na téere bu ñu bind bu yàggul euh, ñu tuddee ko Sénégal le système dans tous ses états donc euh, boo xoolee ci téere bi xam naa ñi ko ñi ko ñi ko xamul mën nañ ko xam ñi ko ñi ko soxla aussi bu ñu demee fële librairie quatre-vingts dinañu mën a am livre mu ngi jar dix mille rek lay jar donc donc bu ko defee ñu mën ko jënd liir ko donc bu ñu ko liiree xam naa dinañu comprendre yu bëri yoo xamante ni Euh, donc euh, ay laaj la yoo xamante ni ñu ngi koy laaj ci Sénégal euh, nu muy doxee jafe-jafe yi nga xam ni am na ko ak saafara yi nga xam ne mën nañ ko am donc boo xoolee couverture livre bi ñu ngi ciy def Mamadou Diop du Diop. moom jàngalekat la waaye tamit étudiant la donc euh, jamonoy 23 juin dafa demoon ci marche bi ci manifestation yi donc ci lañ ko boomee ci lañ ko rayee woon dox boo xoolee ci photo bi sax mu ngi ci nekk ak ay alintine ay ñoom euh, euh, ñi nga xam ni ay Bathily ah Bathily Bathily donc homme politique la bu bu ñu ràññee Sénégal ak ñeneen homme politique ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon fële ceeb obélisque ngir xeex Euh, li ñu tuddee li Ablaye Wade bëggoon def euh, loi bi mu bëggoon dugal teg fi teg fi doomam daal pour mu remplacer ko donc moom ci lañ ko boomee woon euh, boo xoolee image bi lu tax ñu dugal ko li muy wane mooy boo xoolee Sénégal maanaam li ñu doon xeex démb ba nga xam ne ay bakkan rot na ci boo xoolee dafa mel ni soppi nañu ay nit. Euh, am na ay élection yu fi jaar ci diggante bi ñu soppi nit yi euh, teg fi yeneen nit waaye dafa mel ni mbir yi soppeekul moo tax question bi ñu ciy laaj mooy euh, nga xam ni Sonko Ousmane Sonko laaj na ko Cheikh Tidiane Dièye aussi moom bind na téere tamit laaj laaj boobu est-ce que problème mu Sénégal problème mu nit la maanaam soppi nit tegaat nit wala problème mu système la maanaam il faut ñu soppi soppi doxalin yi pour que ñu mën am Sénégal bu bees. donc boo xoolee ci livre bi ci téere bi loolu lañ ci jàngat nga xam ni téere la boo xamante ni am na ñeenti chapitre donc benn chapitre bu njëkk bi euh, ñu ngi ko intitulé euh, mu ngi euh, mu ngi tudd donc ñu ngi intitulé benn chapitre bu njëkk bi ñu ngi koy intitulé le système et les hommes donc Sénégal bo xolé ni muy doxé ak euh, ñi nga xamni ñokoy doxal euh, li ñu tuddé li Ousmane Sonko di tuddé système euh, bo xolé ci chapitre bobu amna texte bo xamanteni ñu ko def ci système bi jangat ko xol ñi nga xamni ñom ñoko ñoo ko ñoo ci njëkkoon wax Ousmane Sonko ak Cheikh Tidiane djey donc wané ni système bi euh da fa am caractère reproductif manam euh Euh, boo xoolee boo xoolee depuis indépendance ba léegi daanaka même doxalin yi euh, moom moo fi am euh, maanaam état boo xamante ni c'est fondé sur les règlements de compte et l'enrichissement personnel donc benn ci benn groupuscule de personnes au détriment de la population ak ci corruption guerre donc daganal guerre yaat daganal guerre ak ak sa ci àlalu askan waaye donc Sonko aussi wane na ni système bi nekk na loo xamante ni donc lu compliqué la euh, te nekkul loo xamante ni mën nañ koo yamale rek ci benn ci benn compartiment wu société bi donc daam moom pour moom système bi donc lu yaatu la waaw lu yaatu la donc ci biir système bi euh, mën nañ ci euh, am ay hommes politiques mën nañ ci am ay technocrates mën nañ ci am ay hauts fonctionnaires ay patrons de presse ay hommes de médias affaires de mën nañ ci am ay nitu diine aussi Hein, donc mën nañ ci am ay privé hein, donc euh, donc système bi lu yaatu la waaw selon selon selon Ousmane Ousmane Sonko ah donc euh, moom loolu la loolu la wane euh, wane ni ñooñu ñoonu nga xam ne ñoom ñoo composé système bi donc kenn ku ci nekk yaa ngi def loo mën ngir système boobu du du deñ donc du fi jóge ndax ñoom seen ceeb ci lay tooy waaw seen ceeb ci lay tooy donc kenn ku ci nekk nag am na am na am na nu ci sa ceeb di tooyee donc ñoom ñoo forme benn groupe donc taxaw temm ngir système bi mu des <laughs> moo tax yenn saa mu dafa wax ni Ousmane Sonko dafa wax lii waaye wu ko xel parce que bi mu dëggee jugee ni rek dafay xeex système bi waroon na bàyyi xel nii ko bàyyi mu nelaw waaye donc ñun tamit wane nañu système bi lu ancré la loo xamante ni que ñun bu ñu juddee dañu fekk dañu fekk société boo xamante ni dafa am nu muy doxee daanaka ci la ñu yar ñu màgg ci. xam nga société boobu pour nga changé ko dafay jafe donc dafay am lu ñuy tuddee caractère de ténacité donc loolu moo wane nañ ko ci suñu ci suñu ci parti boobu ah donc ci parti boobu aussi am na benn benn kii benn kii bu ñu jagleel Macky Sall euh, ñu tuddee ko Macky Sall un simple président ou président simple Macky ku tuuti la wala ku ku ku oyof la donc loolu li muy wane rek xam nga ku euh, xam nga yàlla mën na def nit mu nekk ku kawee ci wàllu dayoo ci xam-xam ci niveau ci spiritualité waye mu nek oyof ah, ci jëflanteem ak doomu adamay waye yalla mën na def nit bo xamanteni dafa am cër nit ñi cërale ko waye mu nek ko xamanteni jëfëm bu jëfé rek wala mu wax rek ñi ni accam ko lool moy nit ku tuti wa donc lool ci lañu mom lañu ñu euh, mom lañu la ci chapitre bobu xamna ku ko yër sax di nga di nga gëna comprendre donc yu bari yo xamanteni euh wane ni donc bo xolé président Macky Sall bi mi doga ñew ci nguur gi ak li nga xam ne digalante woon na ko ak Sénégalais yi daanaka euh, bi mu weesoo euh, ñaari at ci premier mandat am daanaka euh, ci la tàmbalee daal jaar jaar beneen yoon <laughs> donc boo xoolee xam naa sax yéen a ngi fàttaliku ay slogan yi mu daan wax rupture sobriété donc yooyu yëpp ñi xam naa ñu ngi koy fàttaliku donc waaye fi mu ne nii daanaka yooyu yëpp daanaka kenn waxatu ko sax te boo xoolee yooyu yëpp demande sociale la woon Sénégalais yi. Sénégalais yi daanaka dañ ci doon dañ ci doon euh, dañ ci doon wax dañ ci doon xeex nga xam ni euh, jàppoon nañ ni dañoo sonnoon ci état yoo xamante ni dafa fondé ci médiocrité ci ci fenn wax lu dul dëgg arrogance promotion de contre-valeur euh, sàcc alalu askan hein. donc puukare ak rapport bu négatif entre état bi moo xam administration publique la moo xam force de l'ordre yi ak citoyen yi donc ak euh, ak citoyen sénégalais yi donc depuis depuis lors gis nga scandale politique yi donc euh, daanaka day tegaloo <laughs> moo tax sax fi mu ne Sénégal yi dañu de tàmm scandale politique u Macky Sall nga xam ni moom demoon na ba gis ni daal il peut il faut tout se permettre boo xoolee daanaka li ma mujj def donc day dugg ci day dugg ci loolu hmm? donc day day dugg ci loolu boo xoolee sax am na benn campagne présidentielle Euh, mooy la euh, l' élection présidentielle en 2019 amoon na benn responsable APR boo xamante ni dafa waxoon ni ñi nga xam ne am nañu bourse de sécurité familiale bu ñu votewul euh, APR dañuy perte seen bourse ministre ministre responsable APR moo ko wax publiquement ci ci ci ci télé donc àdduna yëpp di ko dégg am na tamit koo xamante ni waxoon na ci télé àdduna yëpp di ko dégg que ni ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañ te nekk Sénégal te di am marché te état di leen jox marché bu ñu jàppalewul état bi régime bi donc financer campagne bi ba accompagner donc beaucoup de faits, le régime bi gagné duñu amati donc lool yépp xewna xewna fi xamna jël euh, donc chapitre bobu di nga ci di comprendre Sénégal donc chapitre ñu ko Ousmane Sonko Ousmane et le système vocation combative et populisme pouvoiriste donc di ni Ousmane Sonko doole bi Sénégal mooy xeex bi mu déclaré ni da koy xeex li mu tuddee système nga xam ni euh, fi mu ne mën nañ ko tuddee om politique de la révélation maanaam nit la koo xamante ni ñëw na euh, mu mel ni nit ñi ki ñu doon séentu jàpp nañ ni moom mooy Sonko moom la yàlla indi ki nga xam ni moom moo war a indi solution bi nga xam ni moom la àdduna doon xaar nga xam ni moom dafa ñëw ci ci espace politique bi euh, tuddee boppam anti système créer yaakaar nag ci jeunes yi ci diaspora bi ak ci yenn borom xam-xam yi. nga xam ne ñu bëri topp nañ ko te boo xoolee ñu ci bëri sax ànduñu <laughs> ñu ak sago ci topp biñ ko topp waaw ndax yaakaar bi for na lool lool lool boo xoolee euh, daanaka sax euh, Pastef fi mu ne daanaka doctrine la wala mën nañ ko tuddee idéologie boo xamante ni euh, mën na sukkandiku ci ñaari mbir li ñu tuddee euh, la souveraineté et le partage équitable des fruits de la croissance maanaam fexe ba Sénégal moom boppam surtout ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nootoon ñoo ko ñoo ko ñoo ko colonisé woon donc mu nekk pays bu souverain moom boppam ci tous les plans sur le plan politique économique social et culturel ah euh, waaye mu nekk dëkk boo xamante ni la mu amakas néew ki ko jiita da koy ñongal waaye fexe ba Euh, kenn ku ci ne gis ci sa bopp li muy li muy tuddee lu ñëpp lu ñëpp bokk kenn ku ci nekk euh, jot ci moo tax mu yee yaakaar ci population yu bëri waaw surtout jeunes yi diaspora bi ak yenn borom xam-xam yi ñu jàpp ni daal Euh, changement mën naa am ak ak ak Ousmane Sonko doo xoolee ci ci ci chapitre boobu donte wax nañ aussi ci limite yi nga xam ni Sonko am na ko ci chapitre boobu xam naa duñ ci yaatal donc ku am jot rek nga jënd téere bi di nga ko mën a gis donc am na beneen chapitre tamit bu ñu def ci vigie citoyenne et culture du refus préalable à la libération des masses populaires donc wane ni euh, Sénégal euh, lii tax réew mi soppeeku leen rek la mooy citoyens euh, yi gën a taxaw rek gën a am caractère gën a am personnalité donc di surveiller ñi nga xam ne ñoom ñooy seen njiit ba pare euh, li ñu tuddee culture du refus xam nga tey boo xoolee président Macky Sall am na yu bëri yoo xamante ne mu ngi koy def euh, defalu ko boppam donc day jox ay ndigal rek ay nit di ko def ñi nga xam ne ñoom la ñuy tëj tëj ñooy tëjaate kaso du Macky Sall mooy tëj kaso <laughs> ay nit ñooy tëj kaso ñu nekk kaso bi ay nit lañu boo xoolee sax ñu bari bañ ba euh, bëgguñu liñ leen def loo mais dañuy jàpp ne bu ñu ko deful ñàkk seen poste waaw donc yu bëri yu Macky Sall di def boo xoolee même justice bi ñuy bi ñuy euh, juge yi nga xam ni juge d'instruction wala procureur yooyu yëpp daanaka euh, du Macky Sall donc ñoom ñooy def donc ay ordre la ñuy jox ay ordre la ñuy la ñuy joxe même ñun ñu ci bëri yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi ñoo nekk ci parce que ñun ñoo nekk ñoo nekk Sénégal waaye donc ñu jàpp ni euh, maanaam culture du refus bu fekkee yow citoyen nga nga xam sa ak ak sa nga gis ni teg nañ la loo xamante ni jaaduwul nga bañ ko loolu bokk na ci loo xamante ni euh, bu yaatoo ci Sénégal surtout nit ñi xam yoon euh, maanaam préalable la ci sénégalais yi ñu dem ba seen i njiit gën leen wekk gën leen bàyyi xel xam nga boo demee ci réewu tubaab yi bon loolu culture la ci ñoom maanaam euh, boo xoolee foofu population yi ñoom ñooy buur waaw du ñoom ñooy buur donc du ñu nangu ñi leen ñuy nabb nabbee ñi leen ñuy nappaaje waaw du ñu nangu seen i njët di leen nappaaje donc loolu nag euh, loolu processus la donc te boo xoolee ñi ngi gis ni Sénégal euh, mu ngi mu ngi avancé bu baax baax ci côté boobu Euh, amna benen chapitre bo xamanteni euh, donc il y a beaucoup de chapitres hein qui sociologie des manifestations de mars 2021 au Sénégal l'exception sénégalaise du vivre ensemble dans une toile dernier servir ou périr pour de bon donc même chapitre euh, da fay toucher sax xew-xew yi nga xamni mom mo xew ci ja suñu jamono ji pour wane ni Sénégal nek na dëkk bo xamanteni ni ñaguñu ko waaw ñaguñu ko na li nga xamni moy indi jamm ci réew mi ñaguñu ko manam Euh, nekk na dëkk boo xamante ni euh, ñun ñëpp daanaka ay mbokk lañ ñuy tuddee le brassage culturel am na cousinage à plaisanterie mais loolu sécuriser wuñu ko ba nga xam ni dina mën a jur jàmm bu durable waaw parce que nekkul ci suñu constitution jàngaluñu ko ci suñu école amul ay loi yoo xamante ni moo koy sàmm waaye ñu jàpp ni loolu bu ñu ci liggéeyul fexe ba ñu am état boo xamante ni dafay méngoo ak réalité sénégalais yi donc mën nañ dem ba euh, lii am ci yeneen réew yëpp am ci am fii ci Sénégal donc ñu wane ni euh, xew-xew bi amoon mars 2021 euh, xew-xew la boo xamante ne bu ñu jàpp ni rek li ko waral moom mooy ay population yu xiif wala yu mer rek génn di yàq déedéet waaye nañ ko jàngat gis ni Sénégal dafa am benn peuple bu bees boo xamante ni euh, peuple la bu am ay valeur ah valeur yooyu bokk na ci li ñu tuddee fierté maanaam peuple bu bu bu bu fier ci moom bu fier ci boppam te Euh, peuple boo xamante ni dafa dafa honorable te am na foo koy yegg rek ci toroxal ah ci def loo xamante ni lu ñaaw la donc di nga dem ba laal xolam euh, yëkkati ko ci yëkkati boo xamante ne bu jugee rek jugam boobu doo ko àttan waaw moo tax boo xoolee 21 euh, mars population yi bi ñu jugee dañoo daanaka mënoon nañu daaneel état parce que moom laay faral di wax mbokk yi man leen gis nga ful bu doful mënul daaneel état. donc il faut mu dof mu daaneel itam moo tax boo xoolee 21 mars ful bi dof dafa dofoon parce que ful bi dañu dañu laaloon xolam waaw maanaam population yi dañu laaloon seen xol donc dañu sentir dañu amoon sentiment que ni euh, régime bi da leen a tooñoon au plus profond ci ci ci seen xol donc boo boo xoolee moo tax euh, génn bi ñu génnoon daanaka euh, mu créé li nga xam ne moom la créé waaye li ñu wax ci ci ci ci ci chapitre boobu rek dañu wane ni Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni. Euh, ñu ko dëkkee maanaam peuple bi nga xam ne ñoo fi nekk euh, peuple bu màgg la waaw peuple bu màgg la boo xamante ni maanaam bu amee euh, bu ñu ko yoree ci façon bi baax rek daanaka mën na mën na dépasser dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi yëpp waaw mën na dépasser dëkk dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp boobu mooy première partie deuxième partie bi ñu ngi ko def sur les crises au Sénégal maanaam feebar yi nga xam ni am na Sénégal donc ci fii ci feebar yooyu wax nañ ci feebaru yoo xamante ni ci valeur la ah ci valeur la ñun jàpp ni euh, feebar yi nga xam ni moo nekk ci valeur ñun jàpp nañ Sénégal ba léegi am nañu ay valeur mais institution yi fi nekk ñoom ñoo transmettre valeur yi nga xam ni mooy suñu valeur euh, exemple bi ma ciy joxe rek mooy jëy da ngay jël cousinage à plaisanterie école bi ñu am jàngalewu ko waaw jëlal euh, li ñu tuddee valeur teranga école bi ñu am jàngale ko jàngalewu ko boo xoolee valeurs yi nga xam ne suñu diine yi valeur donc wala suñu aada yi valeur ngor wala suñu suñu diine yi euh, donc moom la ñuy véhiculer boo xoolee suñu école transmettre ko moo tax nga mën a am sa doom mu jàng école ba am doctorat du xam sax ni buy dugg ci néeg dafa war a fëgg <laughs> euh, buy dugg ci néeg buy néeg buy dugg ci néeg dafa dafa war a fëgg waaye donc mën xale bi mën na jàng école ba am doctorat te du am yaru askanam waaw du am valeur yi nga xam ni moom la askanam jàpp ni lii ay valeur la parce que école ñetti fonction la am benn fonction bu njëkk bi mooy def ci nit ki xam-xam culture générale beneen fonction bi mooy def ci moom yar yar maanaam ay valeur euh, te valeur c'est relatif euh, selon société yi par exemple français yi li ñu jàpp ni mooy mooy lu baax euh, bokkul ak ñun li ñu jàpp ni mooy loolu mooy loolu moom moo baax moo tax ñoom li ñu jàpp ni mooy moo baax moom la ñuy jox moom la ñuy transmettre seen i doom ci seen i école waaw maintenant ñu nit ñu ñu jàpp ni moom mooy baax ci aada ak ci diine moom la ñu transmettre suñuy suñuy suñuy njaboot waaye boo xoolee école bi école tubaab la waaw beneen bi beneen fonction école bi mooy def ci def ci xale bi euh, compétence ba nga xam ne su màggee dina mën a assumer ses responsabilités d'adulte euh, surtout mu am euh, xam-xam boo xamante ni dina ci mën a liggéey te boo xoolee suñu école yi daanaka loolu sax am na chapitre buñ ko réservé ko bo xolé la majeure partie d'entre élèves yi buñu génné am diplôme diplôme lañuy am rek wayé danaka xam-xam bi war danaka du fa euh compétence bi du fa nek yar bi aussi yeen say surtout yar bo xamanteni mom moy suñu yaru société yeen say sa doo ko ci gis donc euh, amone amna benen euh, benen euh, benen texte aussi bo xamanteni ñu ko jaglél fami crise yi nga xamni fami amna ko foofu li ëpp solo li ñu fa wane mooy euh, bu ñu tolloo ci jamono boo xamante ni euh, ñu ngi wax waxi euh, ay forme familiale yu bees comme famille boo xamante ni par exemple mën na am góor ak góor yoo xamante ni ñoom ñooy fondé famille ah, famille góor jigéen wala famille ji famille boo xamante ni góor ak góor ñu koy formé wala famille boo xamante ni jigéen ak jigéen ñoo koy formé ñu jàpp ni ñun Sénégal war nañu assumer suñu modèle familial ba pare ñu fësal ko ci suñuy loi ak ci suñuy suñu contrat social waaw ba nga xam ni ñun dañuy assumer suñu modèle familial daal modèle le modèle hétérosexuel donc mu leer daal waaw mu leer donc euh, ba pare euh, ci suñu instance de socialisation yi aussi bu fekkee ñun modèle hétérosexuel lañu lañu lañu la ñu otte maanaam famille bi il faut mu am góor il faut mu am jigéen te góor ak jigéen kenn ku ci nekk dafa am noo mel boo xoolee ci suñu instance de socialisation yi ñu ciy tabax ay góor góor ñu fexe ba ñu nekk ay góor jigéen ñi ñu fexe ba ñu nekk ay jigéen waaye donc loolu wax nañ ko ci parti boobu wax nañ ci aussi que ni famille importance bi mu am ci société bi loolu état ak collectivité locale yi war nañu bàyyi xel que ni famille bu ñu ko bàyyee mu fragile rek loolu dafay répercuter ci société bi parce que nit ñi comme ci famille la ñuy évoluer kon dañu war a fexe ba euh, famille yëpp ñi mën a am moyen yoo xamante ni dinañ mën a jël en charge seeni membres donc loolu wax nañ ko ci te jàpp nañu état. ak euh, collectivité locale yëpp dañu war a booloo pour fexe ba famille képp koo xamante ni fond nga famille mais ñu fexe ba nga am euh, source de revenu boo xamante ni di nga ci mën a taxaw sa njaboot di nga leen mën a euh, taxaw ci ci ci ci loolu te boo xoolee loolu boo demee ci réewu tubaab bi lu ñu bàyyi xel la dem nañ sax ba wax ni normalement Sénégal war nañ dem ba yegg si neex ku jigéen ku am doom ñu ñu ñu jox la subvention boo xamante ni di ngay toppatoo sa doom. parce que bu ñu seetaanee xale yi ci famille bi seen parents yi nekk ci précarité donc du ñu leen tal donc xale yi bu ñu yàqoo bu ñu fekkee amuñu éducation bu baax am ñu lekk bu baax am jafe-jafe donc bu ñu demee ba am jafe ba génn ci mbedd bi nekk ay délinquants société bi donc moom mooy amaat jafe-jafe bu société bi toppatoo famille bi ba ñu mën a toppatoo xale yi donc xale yi bu ñu génnee ci ci ci ci ci ci mbedd ci penc mi njëriñ lañ fay doon donc bu ñu ñëwee aussi ci institution yi aussi donc dañ leen di mën a utiliser euh, comme comme atout donc euh, comme euh, comme ressource te du ñu nekk ñoo xamante ni phare de société bi la ñu doon xam naa ku ku lire téere bi di nga di nga di nga mën a di nga mën gis yu bari daal yoo xamante ni développé nañ ko ci foofu hein. donc texte bii nag. <laughs> xam naa ni ci laay gën a ci laay gën a yàgg parce que moom moo wax ci euh, thème bi nga xam ni moom ngeen ma soumettre tey donc maa ngi ko tuddee le problème du Sénégal et sociologie